نفع لخير الله في دكار كل أسني جرح المكان حلمني رحمن في الزمينة بأن الخديم في المدينة برأني الله لدى الكناكي من كل جانب إلى المناكي asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi fii rek nga xam ne ba léegi ci euh, Daaru Xudus Daaru Xudus nag mbokk yi fii ci béyti mu mel nii bàyyi euh, bëgg bàmba la ñu fekk si waat xam naa ne ni ñu koy waxee wax dëgg yàlla liggéey bi euh, tar na lool waaye lépp liggéeyal sëriñ Touba Xaadim Rasul ndax xam nañu coono yi saa su ne itam bu xëyee ci liggéeyal sëriñ bi rek Baye bëgg ñu ngi lay nuyu bu baax Bamba. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen nuyu lu bari lool. ñaan suñu borom defal nu tawféex ak ndimbal maa ngi leen loo ci bëgg laajaat du waaw. Baye Bëgg Bamba mu mel ni ñoo ngi fii nga xam ne mooy ci béyti bëgg nañu xam histoire béyti euh, lan moo ko sos lan moo ko sabab. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu ah ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant yonent bi sant sañ tubaa euh, di sant euh, sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal sëñ Amadou Muxtaar. ñu xay ni moom mooy borom kër gi ñu koy sant di ko ñaanal suñ borom mu yàgg fi di eh, ñaanal it ak sant sëñ Abdou Khadir Ndiaye mi xëy ni moom mooy doomi sëñ mooy sëtu sëñ Darou Sane bi xëy ni moom moo nekk xalifa daaru Ndiaye xane sëñ Ousmane Ndiaye mi ci sa gannaaw mooy wajuram eh, moom ci ndigalam lañ fi nekke ak ndigalu sëñ bi ëmb Amadou Mokhtar loolu lañ fi indee. dénk ma barab bi ah dénk ma barab bi barab bi nag eh, kenn du mënta tudd histoire te tuddoo Serigne Darou ndax Serigne Darou moom moo ko cosaan moo ko cosaan ndax Serigne Darou Assane Ndiaye moom bi sëñ bi jógee ba bi sëñ bi ñëw di sanc fii ba mu ko goree ba mu set wecc dafa woo Serigne Darou ne ko nañ ma takkal am néeg takkal ma néeg bii muy néeg bii Serigne Darou moo ko takk takkaloo ko ay taalubeem bi ñu ko takkee ba noppee nag mu di koy ne moom it nañ nañ ko làkkal euh, kër gi làkkum njeer boo xam ne ku warul gëléem du xam mm, du xam du xam lu ci biir kër gi. Mm-hmm. waaw loolu ba mu ko defee ñu làkk kër gi ba ñu làkkee kër gi ba noppi it sëñ Touba daal di koy. ñaan ko ne ko dama bëgg nga dugg ci biir euh, sancal ma ko waaw moom sancal ma sancal ma barab bi mm-hmm. sëñ Daaru Asan moo ko sanc moo ko sanc xanaa nii moom sëñ Darou Assane Ndiaye kenn mënut tudd bayti te tuddoo ko waaw kenn mënut tudd bayti te tuddoo ko yàlla def nag bi mu ci duggee nag ba def ba sanc ko ba def ci lu war a mën weer ba mu génnee nag la sëñ Touba daa ci dugal boppam nag daa ciy nekk nag. nekk ci nekk ci ba nekk ci diirub ak juróom-yaari juróom-yaari at. fekk nag am na yeneen barab yooyu sanc na ko fii ci Touba muy foofu ñu wax Touba foofu muy kër sëñ Saliou moom jàpp ci jumaa ji bi fi dima jumaa ji naan la la la jàll ba bañ naan Touba mosquée ah Touba mosquée waaw boobu mooy foofu mooy Touba yàlla de bi fii nag dikki mu daan koy sanc nag daal di koy tuddee Daaru Xudduus Daaru Xudduus mi rabbil alamin mursal ahmada xanaa nii dañu kër yàlla kër Daaru Xuddoos kër yàlla la waaw léegi moo daal di koy sanc nag daal fi defar néegam bii daal di koy tudd nag bayti waaw bayti nag euh, ay jeexitama ci nekk ay jeexitama ci nekk ay téere ay ay ay ay alxuraan alxuraan rek ak i gaal gaal yoo xam ni war a mat fanweeri gaal ak yaar ak i ak i bagaasam rek moo fi nekk amoon na ay dàll amoon na ay kii waaye yu maanaam yi fi nekkoon yu ci ëpp euh, nit ñi dañu fi daan dugg ba. Euh, ba li ci ëpp nit ñi kii ko ndax xam ne dañuy jox naan dañuy wut lu ñu barkeeloog euh, ak ci faj ci fab lu xëy na moomoo ko yooyu moo tax maanaam ñi ko jëkkoon a yor dañ ko daan ubbi nit ñi di fi dugg euh, ku mumul sa loxo nag fab fi loo xëy nii yow du luñ la sant loola nag moo moo war a moo war man ba ma ba ma ñëwee fii ci kër gi sëñ bi dénk ma ko ne ma nag léegi bul ko ubbiliti kenn bul ko ubbil kenn euh, ma ne ko waaw tout tànk yi ci kër gi nag mu ne ma mu ne ma tuut tànk yi ci kër gi ma ne ko waaw ma ne ko waaw mu ne ma képp ku fi ñëw euh, ko ku ko mën a ku mën di waajuram bu ko bu ko bu ko ubbee bu ko ubbi waaw li ma daal ma koy dénk di ma ko dénk di ma ko dénk waxtu wu ne nag Euh, ba tere ba ba ci média yi sax dafa dafa dañ daan dugg ci biir waaye dafa dafa ko tere dama léegi ku lu ko mën a jël nañ ko mën a jëlee rek waaye nag duñ bu kenn dugg ci biir loolu moom mooy ndigal lii ma ci jox waaw te bu ma ko tere woon na ma bu ci waxit bu ci jéem a waxit du ma ci wax waaw ndax man ndigal rek laay ndigal rek laay déglu barab bi it euh, euh, muy muy barab boo xëy nii sëñ Mourou Moussa da daan wax barab la boo xëy nii barab bu mat di teew la ndax ndax dañoo wax ne ku ñëw ci dëkk bii ci ak suwa ci ci ak suwa ci bërëb bii ah, foo mën a siyaare yët ah, sab siyaare moom mëtu mëtaloo mëtaloo mëtaloo mëtaloo waaw ndax fii dañoo wax ne ku fi ku fi ku fi dikk teg sa tànk te ànd ak sell yàlla mën na laa jégal say bakkaar waaw yàlla nag moom mooy jégal kaanu bak mooy jégalu kaanu bakkaar yi te it mën na laa jégal say bakkaar ci barkeb sëñ tubaa ndax fii moom euh, jeexiit sëñ Touba moo fi nekk jeexit sëñ Touba fii xam ne dañuy bu ñuy wax tubaa fii mooy Touba. fii li ñuy wax Touba moom mooy Touba moom dañu wax ne day dégg naa sax ñuy tooñ sëñ ñuy tooñ sëñ Fallu naan naan ku ku ku ku moom ku moom Touba te yilif foo Daaru Xuddoos mu dara mu dara am na waaw loolu dañ ko dañ ko tooñ sëñ ko wax waaw nee na daal ku yilif Touba te yilif foo Daaru Xuddoos nee na daal moom tur tur yilif nga ko def waaye waaye Daaru Xuddoos mooy mooy mooy dëkk bi Daaru Xuddoos mooy dëkk bi kon nag euh, li ñu ci li liñ ci liñ ci daanaka duñ ci doole ci ëmmatu solo ndax man tukki bi di mu mucc tukki bu ji ndax ji jàkk sëñ ji la ko yonantu bi feeñoo feeñoo nag ànd ak alu batar mais ànd ak boo fi ba mu at rek la fi la la la la laa di doon ci jàkk ji ma bi bi lixtikaaf nag yàlla gis ah, yonantu feeñu ko ànd ak alu batar bi mu leen gisee nag mu ak saaba yi bi mu leen gisee mu nag dafa bëgg a bokk ci Ah, ah, ah, ahlu badar ànd ak saaba ya saabatu rasul yooyu mu ànd ak ñoom xool ku leen gis gis ko waaw loolu nag buñ ko ko ba mu ko waxee yontu bi nag yontu bi nag ne ko nag ñii moom dañoo jaari barab te barab yañ jaaroon jaaratuñ fa jaaratuñ fa li ci mën a tax a bokkit day doon loolu yow dañ koy da nga koy bokk yow yow rek yow rek koy yaa koy toggoo da toog toog te doo ko bokk ak kenn daal di ko ni eh, eh, am naa ci yow ñeewante boobu day bu ma sañoon du dugg dugg ndax euh, sa bakkan mën na cee xaj euh, daanu ko daan daanu ko ne bu ma teem euh, tee nga ñëw ma takkal garaadu xut bu samaan ndax yow sax say at àggagul ci mën a doon xut bu samaan ndax yow say at fanweeri at ak juróom yent ak juróom benn weer moom nga moom moo am nga ci am nga am moom ngay am ci ay at ci sa ayir Euh, léegi nag dama la koy xëccal yenti weer yooyu nga daal di nga daal di daal di taggal garaat bu xot bu samaan waaye sëñ bi nag gërëm ko sant ko lool ne nag man euh, euh, man daal li ma bëgg daal mooy bokk ci saabatu rasul yi ak ahlu badar daal mooy sama moom laa bëgg bëgg moom laa bëgg waaw bu dee koy jaaye ak lu ma koy tax a mën a am rek nañ ma ko xamal yontu bi nag doo ko lim nag bi mu ba egg la nag mën a ko man de Mm, mm, sakkuma sama ak ruu waaye sama bu sama ruu ku sama ruu attanee day euh, lu ñu ma teg danaa ko attan danaa danaa ko muñ lu ñu ma mën a teg rek sa bu ko sama ruu attanee euh, sama sama sama sama jom dana ko dana ko dana ko dana ko dékku waaw loolu nag moo mun na ko nag kon léegi li nga jaayante woon nag euh, euh, li nga jaayante woon nag kon euh, am nga ko waaye nag dangay bi daal di jóge nag dangay ngay daal di génn dëkk bi nag daal dem Mbàkke Bari daal dem da ngay génn dëkk bi nag da nga mu xam génn dëkk bi mu daal di génn dëkk bi daal di dem Mbàkke Bari ba muy jóge fii nag. dénk na waa dëkk bi yëpp daal di wax euh, daal di wax mbooloo mi bañ dajee mu daal ne mu ne euh, dama leen di xamal ne sama dëkk bii di tuubaa day yaar laa fi nekkee woon yaar yooyu ma fi nekkee woon nag képp ku ko fi nekkee da nga am tey danga am ëllëg waaye nag képp ku ko kooj euh, nekke fi neneen lu dul noonu lépp loolu naqari Euh, lépp lu naqari yaa ko teg sa bopp lépp loo gis lu yi yaa ko teg sa bopp ndax euh, yaar yaar yi ma fi nekkee day mooy bëgg yàlla ak yonentu bi rek loolu la fi nekkee woon mu bëgg yàlla ak yonentu bi loolu la fi nekkee woon loolu la fi tàggutoo daal di dem Mbàkke yi ba fa demee nag ba def fa yenti weer ba matal ñeent fukki at nag ba dugg weeru safar wi nag Euh, euh, mu daal cee jàpp nag fukki fan yàgg ak juróom ak juróom ak juróom-ñett waaw xaritu yow ma sabti saamine asar fi xen muxtaar fii sanri safar moo ne taarix ba mooy junni ak ñetti téeméer ak fukki at ak ñett lim bi lee wóor mu ci ci loolu muy diggante ak gàddaay ga loolu moom ca la ba mu ci àggee nag la daal di dem ci tubaab bi euh, jaxasoo tubaab bi ba yàlla defal ko ndam li mu am nag bisu gaaw boobu mu fi jóge woon ànd ak tubaab yi ñu yóbbu ko jeewal euh, ba ñu demee jeewal jóge fa dem aw daal di wuti Louga euh, ba ñu demee kokki foofu la ñu far arañaane daal di dem Louga ba ne Louga yendu fa ba ca takkusaan ñu jël fa saxaar dem Ndar waaw foofu daal la tukki ba jaa tukki ba génn ba sëñ bi nag bis boobu nga xam ne nag mooy bis bi mu demee ci géej gi muy bis bi nga xam ne mooy gaaw boobu muy fukk fan ak juróom ñett moom la wax ne euh, li ma yàlla defal ci la ma ko defalee ci la ma ko defalee daal di wax képp koo xam ne sama sama mbég sa mbég la ah, sama naqar sa naqar la na nga ma santale yàlla ci lii mu ma defal ah, yonent bi daal koy xamal ko ni ko li fi dale ba ba àddina tukki day ah, sa bis bi saa yu ñëwatee jamono dees na la pay pay gu toll ne nga taxaw nga jóg kon nag loolu nag mu di ko jàppante ak moom di ko jàppante moom di ko fayante moom ba mu ñëwee nag mu digle nag léegi nag euh, koo xam ne sa mbig sa mbig la euh, sa naqar sa naxar la nag ma sant la yàlla ci lim ma defal waaw kon nag nan ko sant la yàlla tey ñaan suñu borom nu daje cee tawfeex ak ndimbal et yëpp képp kuy màggal si nag euh, màggal gi moom ndax li sëñ Tuubaa bañ moom ndax Baay al Baay laat daana wax ne Euh, moom teg na ci euh, teg na ci dënnam teg na ci ngàngam teg na ci léppam ndax euh, daal di wax ne ba ba nee li sëñ tubaay tere ci dëkk bi nee na képp ko bàyyiwut nee na lam lay julal nee na du ñoqi te ñoqi moom kone xam na li luy ñoqi waaw ñoqi moom luy bëgg a julu koy def waaw te te nee na moom la lay dal moom nee du du du loon luy ñoqi day daal di jur rek kon nag yàlla noonu yàlla defal uh, tawféex uh, xaajal nu kasara gàtt fan ci te mosuñu ci boppi képp ak cancer ak jabet mosuñu dee ak accident te jéggal nu it bàkkaar yi yëpp te defal ñu toog fi ku fi ñëw ci màggal gi euh, suñu borom def nga màggal si ci jàmm euh, delluwaat ci jàmm waaw delluwaat ci jàmm te te li fi li ñu sëñ bi jigal li ñu sëñ bi euh, yéene nu jot ca nu ni dañu yéene sëñ bi mu jot ca loolu loolu alhamdulilahi la alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah barke sëñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf Baye bëgg Bamba tabarkalla ñu di ko santaat bu baax yaakaar naa kàddu yi am na solo lool kàddu yi na waaye kàddu bi nga xam te lépp li ngay dégg rek léppam taalibe la ñu di ko santaat bu baax di ko ñaanal rek sunu borom tabaraka wa taala doole guddal fanam lool doole ko defal tawféex ak tey si rek nag yaaxa defal ko saxat daare ni ci barke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu yàgg lool di liggéeyal sëriñ bi kon mbokk yi gis ngeen noonu ñu ngi fii ci bayti gis ngeen histoire bi mu wax waaye tamit di wax tamit eh, si jaar jaaru sëriñ bi montation bi Mouhamadou Lamine Muntaxa ak Awa Fatou Diagne ci wàllu éclairage bi Mamadou bi Coumba Ndoffène Diouf montage euh, ñu koy nuyuwaat bu baax a baax ki nga xam ne moo di Daniel Diop kon mbokk yi leen jox beneen plateau ci beneen jëmi jamono 18 safar 1441. nafaali xayrillaahu fi ndakaaru kulla asani jarraxul makaam xalamani rahmaanu fi sabina بأن الخديم المدينة برأني الله لدى الكناكي من كل جانب إلى المناكي